أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وممد groupe Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla doolu ñoo defal tawfiq bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy nuyu ñëpp di jël nuyoo boobu rek di ko teg ci loxol kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jottali ñu ko mbooleem jëmm yi nekk ci biir liggéey bi yëpp di ñaan yàlla doolu ñoo jàppale bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ziyaare ñëpp nag góor ak jigéen ñëpp ñu nekk ci biir liggéey bi di rafetlu taxawaay bi bu baax a baax a baax di ci gën a am xel mu dal itam di ci sant mboole mbokk yëpp nag ci seen ab taxawaay ak seen ab yëg yëg ak seen ab liggéey bu sell bi ñuy taxaw ci biir liggéey bi kon tey xam naa dañu dellu si rek ci jataayu fatwa bi muy tontu laaj yi ñu am fi ay laaj yu fi rot rek jóge ci mbokk yi ñu ci jéem a tontu suñu kemtalaayal kat rek di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli ñu koy jàppale bu baax a baax loolu ñu ci dimbali ba ñu am ci lu koy suñu njort ci man ak fekke tal ak gudd bi fan ak wér ak xéwal yu ñu gën a mën a liggéeyale sëriñ bi yu ñu gën a mën a liggéeyale lislaam bi bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon suñu laaj bi jëkk tey rek ñu ngi jóge ci mbokk mi Salih Njaay ñoo ngi koy ziar di ko ndokkeel bu baax a baax di rafetlu taxawaayam itam ci liggéey bi ak postéefam ak yittewoo gi ak yëg-yëg bi moom dafay laaj ne ma xukmu xalqi shaari fi l ashri al awaili min zil xijjati li may laaj moom la ne dafa dégg ñu ne weeru tabaski bu teroo fan yu jëkk yi muy fukki fan yu jëkk yi dañu ci tere ku wat kawaram wala ku leweku muy laaj loolu sax na wala bu saxee sax na te bu saxee bu fekkee lu am la lan mooy tegtal bi ci alxuraan wala ci sunna waaw ñu koy wax ne rek dañuy wax ne bu weeru tabaski duggee fukki fan yu jëkk yi koo xam ne kii danga nara tabaski am nga xaram tabaski nar koo rey ci tabaski gi fukki fan yu jëkk yi dañuy tere dañuy bañ maanaam nga di ci watu wala nga di ci lewi say we ci lu dul lu mënta ñàkk loolu nag maanaam ñàkk wat googu ak ñàkk leeweku gi nag maanaam sunna la soo xam ne su dëgër la soo xam ne si dañ ko jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ab xadis boobu wax mu nekk ni mu ne xaala sallallahu alayhi wa sallama ida daxalat al ashru al awail min zilhijja wa araada ahadukum an yudaxiya fala yamussa min shaarihi wa bishrihi shay'an yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne saabu weeru tabaski teroo fukki fan yu jëkk yi bu ci kenn watu wala mu ne ci dagg ay bu fekkee ni moom dafa nar a tabaski loolu daal ab xaddis bu wér la boo xam ne bii jële nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man koo tegloo ne kon watu googu ñuy tere ci fukki fan yu jëkk yi ak dindi weya yooyu su mënta ñàkk doon loo xam ne lii loraange lay doon boo ko dindit dañuy wax daal sunna la nga bàyyi ko ba rendi sam xar ba noppi soo ko rendee nag léegi su la neexee nga mën a dindi say kawar ak boo bëggee lewe ko yëpp nga mën koo lewwi su ko defee it tabaski moom noonu rek lay demee ci fukki fanu jëkki daal loolu lañ ci moytuloo képp koo xam ne kii nar nga tabaski kon ñoo ngi sant mbokk moom bu baax yeneen laaj yi ci toppaat mi ngi jóge ci jëwriñu liggéey bi Moodu Ngom ñi ngi ñoo ngi koy ziyaare moom itam di ko dollee sant bu baax a baax di ko ndokkeel itam ci ak góorgóorloom ak ak pëstéefam ak taxawaay bu rafet ci liggéey bi ni mu koy saytoo yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ba li mu am ci yéene liggéey bi yépp yàlla defal ko ci lu koy si njort ñu ànd ko ñun ñëpp bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam ba tey day laaj loo xam ne li li aju ci lu aju ci tabaski la rek muy ñaari laaj yoo xam ne benn bi dane day laaj kan moo war a tabaski maanaam day wax ala man tajibu al udhiyatu ñu ne ko tajibu wala sunnatun ala kulli man tawaffarat fihi shurutul atiya al islaamu wal aqlu wal xuriyatu wal iqaamatu wal istiaatu wal istitaatu waaw tabaski day képp koo xam ne kii charte yi muy wax ni maanaam daje na ci yow muy al islaam mooy nga doon ab jullit bokk ci lislaam wal aqlu ànd ak sam xel nga xam ne sam xel dara sikku ca doon ab dof wal xuriyatu ak moom sa bopp nga xam ne yaa liibar ci sa bopp yaa moom sa bopp wala iqaamatu te nga doon koo xam ne kii doonoo ku nekk ci tukki wala istitaatu ak it nga man ko yi daal na ne bu ñu dajee ci nit ki maanaam tabaski war na ci moom su ko defee yi kon gis nga ko muy lislaam muy doonab jullit ànd ak sam xel ak moom sa bopp ak bañ a nekk ci ab tukki ak it maanaam nga man am man man ak man a amam tabaski kon loolu mooy nit ki bu yi dajee ci moom daal tabaski war na ko kon loolu mooy li nga xam ne li mooy kum daje ci yow rek maanaam tabaski ga war na ci yow su ko defee dinañ ci wax itam atteb tabaski maanaam tabaski lan moo def atteem maanaam sunna la sunna la soo xam ne si su dëgër la ñu war ko def di ko dundal saa boo xamee ne bii jot na ci at mi ku ko man rek maanaam nga def ci wut ci xar moom nga xam ne ni wala la ñuy tëbaskee dinañ wax jur gi nga xam ne bii moom la ñuy tëbaskee ndax bokk na ci li muy laaj moom kon daal ab atem daal sunna la soo xam ne si su dëgëra dëgër la su ko defee kon day am solo itam ñu wax taariful udhiyati maanaam xam ne lan moo di nag am tëbaski buñ naan tëbaski ci lislaam rek war dañoo xam lan la doon su ko defee al udhiyatu al udhiyatu sha'iratu ahli al islaami tuzbaxu ayaama iidi al adha min baadi salaati al iidi ila axiri saatin min nahaari axiri tashriq wa yantahi waqtuha bi maghribi shams yawmi thalith ashara min zilhijjati tabaski nene ab symbole la maanaam ak ngàmmikukaay la ab lu ñuy mën a xàmmee la ñeel jullit ñi maanaam ñi nga xam ne ni dañuy dund lislaam daal tabaski maanaam am màndarga la bu feeñ ci ñoom boo xam ne bii dañ leen koo xamee te mu doon loo xam ne lii moom tabaski dafa am ay fan yoo xam ne yi moom lañu tànn ngir war ko caa rendi muy maanaam bu fekkee ni tabaski bi weer wi dugg na ba ca fukkeelu fan ba foofu la tàmbalee ñu war a rey tabaski moomu waaye tamit bala ñu rey tabaski mi dañu dem julli ji julli ga it ga ba pare doog a ñëw di mën a rey xar moomu wala tabaski moom nga xam ne mi moom la ñuy tabaskee waaye tamit nanu xam ne tabaski yemut ci fukki fan yi rek waaye ku ko mënul ca fukki fan ya fukki fan ya ak benn ak fukki fan yaak ñaar ak fukki fan yaak ñett ñett yépp ci bési tabaski yi la bokk nga xam ne li tàmbalee ci fukki fan yi ba ca fukki fan yaak ñett fu la ci tabaski ni jàppandee rek maanaam mën nga ko rey bu ko defee mu daal di doonam tabaski waaye yemut ca fukki fan ya rek waaw kon la ñu waxan ci atteb tabaski la dañ ne wa hiya sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabuhu min baadihi wa biha amara allahu taala xiina xaala fasalli li rabbika wanxar kon dañ doon sunna soo xam ne si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon def ak i saxaabaam ginnaaw bi fi yonente bi jógee waaye tamit tabaski moom yi loo xam ne li yàlla moonu ko digal ngir ñu war koo def mu wax ne fa salli li rabbika wanxar maanaam na nga dem julli ji jullil sa borom mën nañu ne dañ cay boole julli ko nga xam ne gi mooy julli ko it gi waaye itam mën nañ cee boole wale gépp julli koo xam ne bi rek maanaam war nanu ngir nu julli ko waaye bu dee ci tabaski gi la dañ naan na nga dem julli ji julli ko it ga dogo ñëw nag daal di rey sa tabaski moom nga xam ne nii moom nga war a tabaskee nen nag wal adaaxi xurbatun lillahi yutaxarrabu biha ilallahi rajaa sawaabihi wa xusula mawcuudihi maa kawnihi taala ganiyun anha kama qaala taala lan yanaala llaaha luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum dañu xam ne ba tey Tabaski moomu wala tabaski ci boppam ak jaam yàlla loo xam ne dañ koy def ngir jege ko yàlla dañ koy def ngir jege ko yàlla jege goo xam ne gi dañ koy yaakaar yàlla faynu ci aw yiw waaye tamit yàlla jox ñu te la nga xam ne lii moom la ca diggee donte it moom yàlla moom soxlawut ci tabaski mi dara ndax moom dafay wax ne loolu ngeen di rey naa am tabaski di ko rey na ngir yàlla tax ne ne la leen cay jëriñ mooy rey ko ngeen koy rey ngeen def ko ak jaamu yàlla teg ko ci ko ragal yàlla mooy tax mu doon ak jaamu yàlla waaye yàlla moom soxlawu ca dara waaye lam ca soxla mooy ngeen di ko def ngir ak jaamu goo xam ne gii maanaam dafa tegu ci ak ragal yàlla dégg nga ci kon kuy tabaski na nga góorgóorlu ba sa gëm yàlla googu wér da nga xam ne li ngay def da nga koy tabaski moomu da nga koy def rek te yàlla tax nga dugal ca jaamu yàlla ak ak ragal yàlla gu wér a wér a wér mooy tax maanaam mu doon loo xam ne lii lu yàlla nungu la mu doon ak jaamu yàlla ba tey ci biir laajam boobu mën nañ cee leeral laale tamit am tabaski mënees na ko defaale sa waa kër wala ku nekk da nga ko war a defal sa bopp rek loolu lay wax an kam tujzi ul udhiyatu maanaam am tabaski mën naa yem ci kenn rek mu dim tabaski wala nit mën na koo def fasaale ca ñeneen ña waaw mu ne loolu lu mën a nekk la ne ne wa tajuzu udhiyatul wahidi an ahlil bayti walaw kasaru walaw kasa kasiru walaw kasiru ne ne mennam tabaski day doy na ak kër lu ñu bari bari su fekkee ni maanaam menn tabaski ma dong lañu mën a am wa anil jamii li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam wa li fahmi saxaabati is lam yazbax ahadun min aali beytihi an nafsihi liktifaihim bi udhiyati nabii sallallahu alayhi wa sallam wa xawlihi sallallahu alayhi wa sallam haza an muhammadin wa alihi ne ne kër lu ñu bari bari su fekkee ni menn kenn doon nga fa mën a amam tabaski maanaam mën na ca fasaale ñëpp yéene waale leen ca ndax loolu ne na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def te bi mu ko defee it saxaaba ya dañ ca am ak dégg bu wér nekkat lii kon moom lu mën a nekk la ku nekk ci kër am fam te ba man fa amam tabaski yow donc man ca fasaale ñëpp mu mel ni ñoom ñëpp kon tabaski nañu ndax ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bim fi nekkee maanaam saa bu daa rendim tabaski maanaam da cay fasaale ak njabootam gépp waaye duñ fa nekk di fa rey yeneen tabaski yoo xam ni day ëpp tabaski am yonente bi waaye ci tabaski am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ doon yem ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu daan rey am xaram danaan haza an muhammadin wa alihi danaan maanaam tabaski mii may rey daal man Muhammad maa ngi koy defal sama bopp maa ngi koy reyal sama bopp te yàlla tax ak sama waa kër ñii kon gis nga ci menn tabaski ma kër mën nañu ko bokk ñu fasaali leen ci ñoom ñëpp maanaam ñu bokk yool ba ba tey ne ne waye juusu an yashtarika sabaatu ashxaasin fil ibili wal baqari ne ne bu fekkee ni tam foo xam ne fii ñu ñàkk dañ faa daje waaye ñoom ñooñu mën naa am bu fekkee ni juróom ñaar ñu ca nekk suñu boole lañ am man caa am aw nag wala giléem ne ne may nañ juróom ñaar ñu ne baanaam ñu bokk giléem wala aw nag ñu mën koo rey séddoo ko mu doon seenam tabaski ndax dafay wax ci xadis ne fa an ibni abbaasa qaala kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa xadara al adha fashtarakna fi l juzuri an ashratin wal baqarati an sabin xadis bi nga xam ne ibnu abbas moo ko ndeti dafay wax ne mas na nekk ak yonent bi ci tukki fekk ca tukki googee tabaski dam nu ca bi tabaski jotee ne ne ñu tànn fukki nit ñu bokk giléem tabaskee ko juróom ñaar itam tànn aw ñu jël aw nag daal di koy tabaskee kon loolu dafay tegtale bu dee ne giléem la fukki nit mën nañ koo bokk mu doon seenam tabaski waaye tamit bu dee woon nag la juróom-ñaari nit may nañ leen ñu bokk ko ngir tabaski ko tabase tabaskee ko su fekkee ni dañoo mënta am ku nekk am xar walla aw bëy ba tey dafa bokkan ci laajam muy laaj ana gan façon gan façon jur lañuy war a tabaskee ci jur yi ndax du jur gépp a mën a tabaski waaye daa am yuñ ca tànn yoo xam ne dañ ne yii moom lañu war a tabaskee waaye tamit mu boole ca laaj ba maanaam yooyu nga xam ni moom la ñu war a tabaskee dinañ ko wax incha allahu maanaam nan lañ war a mel ba ñu mën koo tabaski ak ak nu ñuy mel noo xam ne ni suñ la melee duñ leen mën a tabaskee kon loolu itam dañ koy wax ne ko wa yushtaratu fi l udhiyati shurutun minha an takuna min bahimati al an'ami wala tasixu min altuyuuri wal asmaaki wa geyriha qaala allahu taala liyadkuru sma allahi alayha ala liyadkuru sma allahi ala ma razaqahum min bahimati al anaam wa hiya al ibilu wal baqaru wa danu wal maaiz nee na dañuy sartal ci ay tabaski sart yi mooy na bokk ci bahimatul anaam maanaam bahimatul anaam mooy giléem ak nag ak xar ak bëy lañ ci jublu loolu la ci alxuraan jublu nee nag bu ko defee tabaski du wér ci ay picc maanaam lu amit dongo di naaw ne ne mën di tabaski wala asmaak ay jënitam maanaam lu ne ci biiram ndox di dund mënut ay tabaski ndax yàlla dane maa ngi leen di digal ngeen def ngeen rey ay tabaski ngir di fàttaliku di tudd turu yàlla ci li ma leen wërsëgale ci wàllu jur goo nga xam ne gii moo leen dagan ngeen mën ca ngénte man ca di ca tabaski muy giléem nag xar ak bëy jur gi lanu lislaam tànnal maanaam moom lanu alxuraan tànnal ngir maanaam ñu mën koo tabaskee te it ne ne walam yuraf anhu sallallahu alayhi wa sallam wala an an sahabati hadyun wala udhiyatun wala aqiqatun min ghayriha ne ne nag sallallahu alayhi wa sallam li fi nekk lépp ak saxaaba mi xamuñu xamuñu ci yonente bi waaye tam xamuñu ci saxaaba yi benn xëdd yu boo xam ne bii mas nañ koo def xëdd yu mooy lu kii kii aj bi muy def wala uduxiyatu mos ñoo xam benn tabaski boo xam ne bii yonente bi def na ko wala ay saxaabam wala am tudd maanaam muy ngénte lu dul ni ci ñii ci yii lañ ko daan defee yonente bi ak saxaaba yi mu ne daal ci yii daal lañu gisan bu dee xëdd yu la mu di ko ca def wala ñu di ko ca def bu dee tabaski la ñu di ko ca def bu dee ngénte la itam ñu di ko ca def muy nag gileem xar bëy su ko defee loolu tey day bokk ci façon maanaam xeeti jur yi nga xam ne yi maanaam moom la ñu mën a tabaskee bokk na ca charte itam an tabluxa sinna al muxaddarata charan ne na itam yeemu la limal boo ciy tabaskee dafay am ay at yoo xam ne yi maanaam moom la war a am maanaam nga dog koo mën a tabaskee bu dee ci charia la mooy bi an takuna jaziatan min ad-da'ni wa huwa ma tamma lahu nisfu sanatin ne ne bu fekkee ni am xar ngay tabaskee maanaam xar mi lu mu néew néew ci li mu am ci dund gi mooy juróom benn weer maanaam xaajam xaaju at mooy juróom benn weer maanaam yow bu deem xar ngay tabaskee bu matee juróom benn weer mat nam tabaski awi thaniyu minal maizi wa huwa ma tammaloo sanatun ne na itam bu fekkee ni aw bëy ngay tabaskee lu mu néew néew na am am at bu dee bëy la moom dafa war a am doon bëy woo xam ne nii am na lu matam at doga mën a doon am tabaski aw saniyatu ibilin wa huwa ma tammalahu xamsu sinina ne na itam bu dee ni giléem ngay tabaskee giléem gu am juróomi at maanaam moo mën a tabaski kon boo dee tabaskee giléem na nga fexe bu wut giléem goo xam ne gi am na juróomi at lu mu néew néew awis saniyu minal baqari wa huwa ma tammalahu sanataani bu fekkee ni tamit nag ngay tabaskee nag wu am ñaari at moo mën a tabaski kon yow miy tabaski bu dee ni am xar ngay tabaskee na am juróom benn weer su ko amee mën naa tabaski bu dee aw bëy ngay tabaskee na am lu matam at su amee lu matam at rek mën naa tabaski moom bëy bu dee ni giléem ngay tabaskee na doon giléem goo xam ne gi am na juróomi at bu dee ni aw nag ngay tabaskee nag na doon nag woo xam ne bii am na ñaari at kon loolu mooy li nga xam ne lii mooy sartab at yi nga xam ne yii wala diir bi nga xam ne bii moom la jur googu war a am doog a mën a am tabaski bu ci nekk ci ñoom bokk na ci sarti jur googu ñu war a tabaskee an taxlu minal uyubi ne ne jur googu dañoo war a mucc ci ayib yi nga xam ni moom la bëgg a wax al aybul awwalu al awru ne ne ay ayib bi ci jëkk nga xam ne kenn ci ñoom ñee su ko amee maanaam du mën a doon am tabaski mooy al awru mooy bu fekkee ni dafa pat maanaam giléem gu pat walaw nag walam xar walaw bëy mënta tabaski patt mooy boo xam ne mi maanaam benn bët ba dafa yàqu mënta gis beneen ayib ba nga xam ne bii bu ko amee du mën a tabaski mooy almaradu bu fekkee ne dafa feebar waaw yooyu itam bu ci feebar maanaam du mën a doon am tabaski al araju bu fekkee ni dafa làggi bokk na ci ayib yi nga xam ne dina tax du mën a tabaski mooy mu nekk boo xam ne bii dafa làggi làgg gi mooy maanaam tànk yi maanaam am lu ca sikk ba mu mu koy soox wala du ca mën a dox bokk na ci ay bitam alhazal mooy boo xam ne bii dafa yooyu ngokk ba xam ne bii maanaam daanaka amatul graisse ne ne yooyu yi daal bum ci mën a doon su boobaa dootul mën a tabaski waaye tamit ne na wa naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an an adba il uzni ne na yonente bi itam nag tere na ñuy tëbaskee kenn ca ñee loo xam ne bi maanaam dañoo dagg xaaju nopp ba wala la ëpp ca nopp ba ñu dagg ko ne ne bu fekkee ne dañoo dagg ci nopp bi daal la xaaj ba dem na wala la ëpp xaaj ba dem ca nopp ba loolu yonente bi tere na ku ko tëbaskee aw jaanibul uzni wala ci wetu nopp gi ñu njoof ko dagg ko ma ne lu ko dagg ci côté bi wa mashquuquha wa mash wa masxuubuha ne na itam bu ñu xare nopp bi itam yonente bi tere na ñu tabaski ko wala ñu bënn ko def ci bën bën boo xam ne bii da ngay gis bën bën bi wa ma zahaba xarnuha kulluhu ne nañu tamit bee yeemula limulan boo ci xam ne bi maanaam amut ab geen maanaam geen ba dafa dañ dafa dagg geen bi yépp dafa dañ ne ne du mën am tabaski wala ama bu fekkee ne tamit dafa gumba maanaam ñaari bët yëpp maanaam benn gisu ci xam nga waxan na fee boo xam ne bi dafa pat bañan na ko waaye tamit bu àggee ci gumba nga xam ne bët yi benn gisu ci tamit ne ne boobu mënta tabaski waaw kon bu ko defee itam bokk na ca charte ya an takuna milkan lil mudahi aw mazunan lahu fiha ne ne tamit tabaski mi day wér maanaam bala muy doon bala muy wér mën a doonam tabaski day fekk ne ki koy tabaski moo ko moom moom gu wér a wér a wér wala ñu digal ko ne ko tabaskee ko fala tasixul udhiyatu bi marzubatin aw masruxatin ne ne tabaski moo xam ne nii dañu ko agressé jël ko maanaam dañ ko këf ci boroom dem tabaskee ko ne ne baaxut aw masruxatin ne ne tabaski moo xam ne itam dañ koo sàcc dem rey ko ne dañ koy tabaskee moom yi tamit baaxut li xawlihi sallallahu alayhi wasallam inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dane kat yàlla moom lu tee la te bëggut lenn loo xam ne lii lu teeyut la kon ki nga xam ne kii dafa sàccam xar tabaskee ko su boobaa am tabaskeem baaxut bu fekkee ne da ko agressé wala mu këfe ko ci boroom dem tabaskee ko it maanaam l'islam bëggut kon bu ko defee yooyu tamit mooy charte yi nga xam ni daal buñ ko tënkee mooy mooy aju ci lu jëm ci wàllu yooyu nga xam ni moom lañu war a tabaskee muy nag ya giléem ya bëy ya ak xar ya yi tamit mooy ayib yi nga xam ne yi su ca amee dee su ko mën a tabaskee waaye tamit at yee nga xam ne yi moom lañ wax ci bum ci doon boobu yi tamit képp kuy tabaski daal war ngaa góorgóorlu ba sàmmanteeg maanaam sa tabaski moom maanaam nga tànn ko seetlu ko bu baax a baax a baax ndax ay yéemu la ci wax yëpp boo teewut seetlu ko ca jur ga mën na caa nekk te maanaam doo ko xam lu mel ni maanaam bu fekkee ni dafa pat pat xam nga ne boo te boo ko seetlu bu baax mën nga ko bañ a xam ca jur ga ak bu gumba yooyu moom dañu naan yow mii tabaski daal li war ci yow daal mooy na nga góorgóorlu ba sax sa loolu ngay tabaskee nga xool ko ba mucc ci ayib yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dane bam ci am rek maanaam boobee du mën am tabaski nga dëkk ko tabaskee kon jawriñ daal loolu mooy li nga xam ne li lu ñu tënkale rek ci tabaski muy doon lu yaatu lool nag waaye tam buñ ne tabaski itam suñu xel war naa dem ci ñu xam ne ndigal la loo xam ne lii dafa doon loo xam ne li ci yàlla la jóge jëm ci ab jaamam bu sell muy sayyidina ibrahim alayhi salaam waaye tam bi mu doonee ndigal lu jóge ci yàlla dem ci kilifa googu moom i tamit mu wëlbatiku nekk nag ak njabootam maanaam doomam jooju ñuy wax ismail yàlla jox ko ndigal loolu nga xam ne lii moom ci koom la war a wàcc moom waajur yi mu daal di koy wax doom jooju itamit doom jooju itam fas yéene jëfe ndigal loolee kon nañu xam ne tabaski moom yi Seydina Ibrahim la ko yàlla digalan maanaam mu war a ren di doom jooju ñu waxan Ismaayil moom la alxuraan di wax ne yaa bunayya inni ra'aytu fil manami anniya azba'uka fanzur maza tara yàlla dafa wax sidna ibrahim ne ko sa doom jooju ji ismaila maa ngi lay wax na nga ko rey maa ngi lay digal na nga ko rey maanaam mu gént ko daf yonent moom lu mu gént rek maanaam wax yu la maanaam dañ ko koy wax ci ay nelaw rek waaye dëgg lay doon te fekk na sidna ibrahim yéex a am doom lool ndax dégg ne nañu dem na ba am juróom-ñetti fukki at am na ñu ko wax doga am doom muy ismaila moomu ak ishaq waaw bi mu amee ishaq ismail moomu nag yàlla ne ko léegi bi mu demee ba mu dëgër mu nekkoon léegi nag nanga ko rendi gis nga mu doon digal lu jóge ci yàlla waaye gis nga la muy miti miti lépp ak foofu mu ko fekk noonu Seydina Ibrahim dafa daal di dolli ak gëmam yàllaam daal di nungu fas yéene def ndigal loolu ko xam ne moom la ko yàlla digal maanaam foofu mu daal di fay def la nga xam ne maanaam moom la ku gëm yàlla ab jullit ku jox boppam yàlla war a def lu yàlla digle lu mu mën a demee rek loola dañ ko war a jéem a jëfe waaye tamit waajur woowu kilifa gu di Seydina Ibrahim moom itam doon waajur ci Ismaayil ci wàllu doom yi ñoom i tamit doom bu fekkee ni jullit xaqan la moom i tamit lépp loo xam ne li ay waajuram dañ ko ko digal ci loo xam ne lii lu yàlla digle la loola da caa war a góorgóorlu kémtalaal kattam kàttanam def ko waaye bu dee lañ koy terala it te yàlla tax da ko war a bàyyi ndaxte defe naa ne amul wenn waajur woy àggadi ci di sàkku ci doomam lii Seydina Ibrahim sàkkoon ci doomam jooyu muy dama lay rendi loolu moom defe naa lenn ndigal lu ne tareeti moom amatul te Ismaïl loolu muy rend gi métti lépp bi ko waajuram moom wax itam da caa daal di d'accord ak moom nungul ko ko moom itam am ca fas yéene tëdd baayam daal di jëfe digal loolu nga xam ne lii moom la ko yàlla digal ànd ak loolu lépp nag mu doon natt yoo xam ne yi yàlla da leen ko doon nattu di leen seet ba xam ñoom fañ la seen a gëm yàlla tollu bu ko defee mu fekk ni Seydina Ibrahim nungu na ndigalal yàlla waaye doom ji itam nungu na ndigalal waajuram te mooy ndigalal yàlla la lañ ci amee mooy rende googee Ismaayil mucc na ca te terewut dina ca am yoolam ndigal la nga xam ne lii moom la ci yàlla jeexawoon buñ ko rendi woon waaye Seydina Ibrahim it doom jooju nga xam ne bii moo doonoon ab xolam moom it tamit mu fas yéene jëfe ndigal yàlla te far yàlla daal di koy wëlbati ren di nga amut mooy na mu dari ci am yool bu toll ni bu ko rendi wan ndaxte dafay yàlla dafay wax ne wa fadaynaahu bi zibhin azimin ne ne yàlla ne ne bi ma diggalee Seydina Ibrahima mu nungu ndigal loolee mu wax ko doom ja doom ja nungu tamit maanaam dama wëlbatiku man yàlla jote doom ja am xar moo xam ne nii moom la Seydina Ibrahim mujj rey keroog remplacé ko doom jooju nga xam ne ji moom la war a na rendi kon moom itam lu yaatu la loo xam ne lii xañ na mbokk yi mën nañ ci gën a def ak yaatal gu baree bari ndax moom foofu moom fu yaatoo yaatu la jëm ci wàllu tabaski daal ñu koy tënk woowu ci diggante ndigal daal lu jóge ci yàlla lu jóge ci waajure yépp daal bu dee ni lu dëppoo lu neex yàlla la mu doon lu ñu war a jëfe loo xam ne di suñ ci amee yéene jëf rek lu mu miti miti rek mën naa am miti wa dund ca àggata du bu boobaa lépp lu ci xéwal rek yàlla dinañ ko ci defal waaw kon ñoo ngi sant ci laaj boobu bu baax a baax am na solo lool yaatu na lool moo mbokk male doon laaj ca lale nga xam ne di mooy jullit bi ban taxawaay la war a am ci bu fukki fan yi tabaski jëkk yu duggee ndax ab jullit moom lu mu mën a doon rek ci diineem da ko war a gëstu xam ko ba xam lam ca war a jëfe ak lam ca wërta jëf kon am na solo lool ñuy jéem a gëstu suñu diine di ko jéem a xam di ko leeru ndaxte yëf yi bari nag jaxasoo lool ba am nañu baree bari moom dem nañ ba yooyu sax jéematuñ ko lijjanti kon ñi am seetlop taxaw di fas yéene dund seeneen jullit daal di ca lépp lu leen ci lënd ñu koy leerlu daal yal na leen yàlla doon la defal tawfiix waaye fañ koy leerloo it yal na fa yàlla gën a def tawfiix ba lépp luñ fay sàkku ci leer loola ñoo ñu mën ko leeral bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen laaj yi ci topp sëriñ Muhammadu Juuf jawriñu alxuraanul karim moo ko fi tàbbal di ko laaj ñu di ko ndokkeel di ko ziyaare di rafetlu xawaayam ak pëstéefam ak bëgg-bëggam ak ak sellalam di ñaan yàlla doole ñoo defal tawfiix bu baax a baax sëriñ Mouhamadou Diouf moom ay laajam mi nga aju ci koo xam ne kii dafa faatu maanaam ginnaawam nan la war a demee laajam bu njëkk muy laaj ne nit ki su faatoo ba jóge fi daal alal ji nga xam ne ji moom la fi wa moom la fi bàyyi su fi bàyyee alal alalam jooju maanaam lan lañ ci war a def mu doon lu jara laaj nag lu jara leerlu lu jara xam ndax seetlu boobu mu ci am ne dafay gis ne nit ki su fi jógee ay lim fi bàyyi ci alal dañ cay nekk di ca jëfandikoo di ca dépense di ca def yeneen yoo xam ne yi daanaka duñu jéem a lijjanti sax xaalis boobu lan lañ ca war a def ne ne loolu daal bëgg na ci leer ñu koy wax ne nit ki day su fekkee ni dafay jóge li nga xam ne lii moom la fi bàyyi moom la ñuy wax alxuququ almutaalliqatu bi tarikati ak yi nga xam ne yii mooy aju ci li nga xam ne lii moom lañ fi bàyyi moom la fi bàyyi moom ki faatu te loola rek lañ ca war a def mooy lii may wax nii muy juróom la maanaam xamsatu li nga xam ne lii moom la ñu war a def ci xaalisat ki nga xam ne kii dafay jógee juróom la ko jàngalekat yi fiqh yi séddale maanaam muy adduyuun al ayniyatu ak adduyuunul mutallaxatu al mutlaxatu ak al wasiyatu ak al irth ak tajhizul mayit juróom yi nañ ne maanaam bu fi nit ki jógee bàyyi fi alal lenn waruñu ko def ci alal ja lu lii muy adduyunul ayniyatu muy bor yi nga xam ne yii maanaam bori jëmm la joo xam ne ji maanaam da koy topp moom ki faatu ñu war ko ko feel muy bor boobu daal façon boru maanaam ab tayle la maanaam nit ki su fekkee ni dañ dafa tayle woon dara ñu jox ko cab xaalis léegi mu jóge fii te tayle boobu maanaam delluwut borom xaalis ba lam tayle woon bokkee bëgg koo jot maanaam dañuy xool loole ñu jox ko ka ko ko joxoon ngir ta loole mu ko tayle woon maanaam maanaam façon bor la ko jàngalekat yi fiq yi jàppee beneen bor bu ci des mooy adduyunul mutlaxa adduyunul mutlaxa nag mooy bor yi nga xam ne yi maanaam moom ci boppam moo ko doon lépp bu fekkee ni lem na fa dara jóge fa te feyu ko bor yooyu tamit dañu ko war a xool bu mënee génn ci alal ja ñu génne ko ca ba ca toppaat mooy alwasaaya alwasaaya mooy loo xam ne li moom bi muy faatu laataa muy faatu nene man suma faatoo nañ ma defal nangam ak nangam su ko defee nag alwasaaya moom muy ndénkaane yee la mu ne nañ ma ko ca defal moom bu ñu génnee borom yee ñaari façon bor yee ma wax daldi ci génne tajhiizul mayit maanaam liñ koy waajale ngir denc ko loolu ci alal ji lañ ko war a defee bu fekkee ne bàyyi na ko fa tajhiizul mayit maanaam waaj lañ koy waajal maanaam sang gaag càngaay yaag bu fekkee ni ña koy taxaw dañ leen di feeg yooyu yépp maanaam loolu ci alal ji lañ ko war a génne juróomeel ba nag la ca des ca alal ja mooy ñi nga xam ne ñi ñoo ko war a doon maanaam ñu boole ca miraas maanaam ñu def ko miraas maanaam ñu miraas ko kon li nga xam ne lii moom la dénkaane nag ne nañ ma ko defal suñ ci génnee ñeent yee maanaam buñ ci génnee bor ya génne ca la ñu koy waajale ngir denc ko la des ca alal ja dañ koy xaaj ñetti xaaj lam waxal ne nañ ma ko defal muy ndénkaane ya ñu génne ko ca benn xaaj ba su fekkee ni benn xaaj ba mën na koo matale ñu génne ko ca su ko mënta matale yi tamit maanaam ñu génne ca daal xaaj boobu daal ca la ñuy yem ci lam dénkaane woon waaye waruñu ko weesu di laal la ca des ca alal ja su ko defee lépp loo xam ne lii nag defaat nañ ko lu bokkut ak lii buñ ko defee ca alal ja maanaam doonu loo xam ne nii lu ñu war a def la kon loolu itam lu ñu war a baxal la ci ne nit ki daal su fi jógee su fi bàyyee alal juróom yi rek lañu may ñu def ko ci alal ja waaye leneen luñ ca def rek maanaam dañoo jalgati yoon waaye waruñu ko caa def beneen laajam bi ba tey bi ci topp mooy lu am solo lu jar a laaj muy ne ne loolu ñuy wax sarax ñun niñ ko tërale programme ko ni nga xam ne dañuy sàkk bés ne dañ koy saraxal nit ña daje fa ñu wut ab carnet di ca bind xaalis boo xam ne bii nit ña dañu koy joxe ngir dañ koy joxe ca dëj ba waaye dañ koy bind loolu maanaam mu mel ni bor maanaam melut ni bor sax waaye bor la doon ndaxte dañuy dégg ba tàyyi saa bu ñu bindee carnet boobu ba xam ne jaale jeex na ñu woo ña nga xam ne ñi ñoo ñoo njaboot ak kafaatu ne leen gis ngeen carnet bii kan mi ngi noonu ay bor la kon loolu leer na nañu ne ay bor la waaye foofu it dama fi wax ne loolu jafe-jafe bu rëy rëy rëy la loo xam ne lii xamuñu nan lañ cay muccee ndaxte aada woo nañ ko tàmm ko tàmm ko boo xam ne lii ngir nga nekk ci suñu gox bi wala nga nekk ci suñu jamono jii nu dund maanaam mucc ci loolu lu jafe-jafe la waaye lu lu lees war a moytu la lu jërte def la ndaxte loolu doonut loo xam ne lii mën nañ ci am benn tegtal boo xam ne bii alxuraan da ko wax wala benn tegtal boo xam ne bii ci sunna lañ ko jële kon loolu dal nañu xam ne ab feebar la boo xam ne bii dal nañu ñun boo xam ne bii defe naa ngir ñu mucc ca lu jafe lool la ndax booy seet ñi nga xam ne ñi dañ ne ay kilifay diine lañu sax nag booy xool ñun ñu doon ñoo xam ne ñi ñoo ko waran di tere booy seet daanaka ñoo ca jiitu kon loolu dañu naan maanaam bu fekkee ni docteur yi nga xam ne yi maanaam ñooy war a faje ñoo feebar kon ñi feebar ñoom ana fan la ñuy fajoo ji mu doon lu day waar kon bu ko defee wàllu dëj boobu ñu def sax amut cëslaay maanaam alxuraan digliw ko sunna digliw ko bu ko defee li may wax foofu rek mooy damay jëkk a wax li nga xam ne mooy sunu kilifa gii moom la wax Cheikh Chouaïbou Mbacké moom la wax ci wàllu dajadi def ne dañuy sarax maanaam dañuy dëjal dañuy saraxal dañuy dëjal bala ñuy wax li nga xam ne lii moom la ñu gëstu ci téere yi nga xam ne yi maanaam ca la ñuy jàng fiqh dama leen di wax waxi kilifa gi muy Cheikh Chouaïbou Mbacké nee na manau jiddan al ijtimaa lil ma'tam wa zabh al baqar wa gayraha Cheikh Chouaïbou Mbacké dafay wax ca téereb xuratul aynem ba ne bañ nañu lool buy wax bañ nañu lool nag mooy boroom xam-xam muy jàng ñi jàngale fiqh lay wax ne ne bañ nañu nit faatu ñu daje fa naan dañ koy defal ab dëcc dañ koy saraxal daal di wax ne ñu maanaam muy lu leer nañ ñu def mu ne bañ nañu loolu ñu koy daje di def ab dëcc di saraxal di fa rey ay nag wala leneen loo xam ne doonut ay nag kon defe naa yee dafay daal di wax ne kon daje di saraxal moom baaxut amul cëslaay ne ne wala afdalu iqtisaarul kulli fi yawmil wafaati ne ne la gën a daal mooy nit ki su faatoo lépp ñu yemale ko ca bés ba luñ ko cay defal ñu defal ko ko ca te it daje ga sax ne fa di toog sax buñ demee ba ca kanam dina ko gën a leeral ne ne sax loolu mayewuñu ko li gën a mooy bu faatoo rek lépp ñu yemale ko ca bés ba te gis nga loolu nim nu jafee mënu noo fexe ba loolu nu am ko daal di waxaat moom Cheikh Chouaïbou ne makruhun jiddan aqdu ma'tamin bi tahdidi yawmi wafatihi kullama aada hazal yawm ne ne bañ nañu lool sim nañu lool ñoom boroom xam-xam yi maanaam ñiy def dig bisab sarax bis bi boo xam ne dañ koy jàpp ne dañ koy saraxal maanaam dañ koy defal ab dëj mooy di jàpp bés boo xam ne bii saa bu ñëwee bés ba bu ñëwee ñu ne dañ koy dëjal tey ji dañ koy saraxal ne ne loolu boroom xam-xam yi bañ nañ ko lool kon loolu lenn la ci wax joo xam ne ji Cheikh Souhaïbou Mbacké wax na ko su ko defee ñun liñ ci gën a leeraat itam ci yeneen téere fiqh yi mooy dañ ne as-sunnatu lil muslimina an yusaa'idu ahlal mayyiti bi ba'thi ta'ami lahum ne na daal li sunna ñeel jullit ni ñi waran koy def mooy nit ki su faatoo ñu dimmal bokkam ya nga xam ne maanaam waa këram ña ñu dimbali leen ci maanaam togg ay ñam ñoom yët leen ko ñoom ci seen bopp ñoom waa kër ga waruñu fa nekk sax ñoom di togg nit ñi dafa dajaloo di ko lekk waaye seen mbokk ya ñoo waran di togg aw ñam di leen ko yët ca kër ga ndaxte ne neen li annahum mashghuluuna an sun'i taam ne neen ndax waa kër kër bu fa nit faatoo dañuy am yitte ju rëy rëy joo xam ne ni dañu nekk ci aw naqar ak tiis woo xam ne bii maanaam duñ fa tala nekk di defar aw ñam woo xam ne bii dañ koy def di ko joxe ñu fa daje di ko lekk loolu mu ne nag maanaam waa kër ga waruñoo wut aw ñam di ko togg di ko jox ña fa daje ñu toog fa di ko lekk ci xaddis bi lañu ko tegtaloo muy wa an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala li ahlihi lamma jaa annaayu jaafarin ibni abi taalibin yowma mu'tata dégg nga de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne bi ñu ko tàggee jaafar ibnu abi taalib nga xam ne jaafar ci saxaaba yi la bokkan xare boobu ñu doon wax mu'tata ci xare yi yonente bi doon xare la mooy mu'tata ñuy jàng histoire xam nañ ko jaafar ne ne ba mu ca faatoo ñu ñëw tàggee ko yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax waa kër jaafar ñu ne leen dafa wax waa këram moom ci yoon moom ci boppam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax waa këram ne leen ibaathu li ahli jaafarin taaman yéen waa kër gi na ngeen wut aw ñam ngeen yóbbu ko jox ko waa kër jaafar ña faqad ataahum ma yushxinuhum ndaxte kat tey jii am nañu jafe-jafe bu rëy boo xam ne bii talatuñu dara kon wut leen aw ñam ngeen yóbbu ko jox leen ko kon haza min as-sunnati nee na kon lii daal mooy sunna kon amma kawnu ahlil mayti yaqumuuna wa yasna'uuna at-ta'ama linnaasi haza la yanbaxi haza munkar nee na nag jëmmi nag waa kër ga di wut aw ñam di ko togg di ko defar nit ñi dafa dajaloo di ko lekk ne na xeesa laa yan baxee doonu loo xam ne lu war la dafay waxaat ne xeesa munkar li sax dañ koo sib dañ koo bañ kon li ma doon wax fii rek ne ñun dañoo am jafe-jafe gis nga dajaloo di dëj ci boppam di saraxal ni mu garaawee ak ni ñu ko teree nga xam ne rotul fenn ci sunna rotul fenn ci alxuraan yonente bi mosu ko def saxaaba yi mosuñu koo def kon ak ñun ni ñu koy dundee kon dañu la wax wax ne loolu moom bidaatun shania la mooy bidaa bu ñaaw la bu baaxut waaw bu ko defee wa zuwaaruhum yanbaghi an yuxaffifu ne ne nit bu faatoo dañoo war a dem massawu leen jaale leen bokk ak ñoom na xarwaa waaye nag jaale boobu ak ziar boobu ñu dem di ko def ma ne moom ne dañ koo war a oyofal oyofal bi mooy lan yazurunahum li taaziyati nañu dem ziar leen ngir jaale leen summa yansarifuuna te buñ leen jaale buñ fa nekk di toog di fa dajaloo ne na lii sunna mooy nit ki bu faatoo nga dem jaale ay mbokkam dëpp ñibbiwaat waaye amul sax dajaloo fa di fa toog ñuy togg ñoom di la jox wala ñu fay dikk ay bés ngay toog di xaar naa bés ba saraxas diw sa bés sàngam la wala yusxiluuna alih ne ne du yell ci nit ki kee am ku mu faatule ba pare maanaam nga dem di ko dolli ab yen mane loolu baaxut mun kar la waaw gis nga su ko defee nag la gën a garaaw muy laaj bu am solo mi wax muy xaalis bi ñu joxante nga xam ne loolu moom moo gën a garaaw moo gën a yées moo gën a bon ndax amul benn kislaay te dañ koo tere sax far beneen ne ne ama i'taa'ul maali wa kitaabatuhu misla daynin fa haza la dalila lahu min alqurani wala sunnati ne ne nag dafa joxe xaalis ñu di ko bind ci kaye mel ni dafa doon bor ndax bor lañ koy def ne ne lii moom amul benn kislaay ci alquran amul benn kislaay ci sunna te it lu ñaaw la ndaxte yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu ala ismi wala udwaan yàlla dana na ngeen di dimbalante ci lu baax ak lu leen di dolli ak ragal yàlla waaye bu leen di dimbalante ci loo xam ne ni day waral bàkkaar waaye day waral ak noonu foofu dañ fi daal di gis ne kon bu dee ni ñu ngay dëcc dajale nit ñi di laajab xaalis di ko bind ci kaye ñu ngay def safaanab la yàlla digle mooy ñu ngay dimbalante ci loo xam ne li bàkkaar la waaye ñu ngay dimbalante ci loo xam ne mën na indi noonu mën na indi noonu te da koy indi te am na ndax buñ dajee di bind lañuy jaale ëllëg ka jaale woon fukki junni moom itam amab dëcc ñooñu mu joxoon fukki junni ñu bind ko ca carnet ba ñu ñëw joxe fa lu yées fukki junni su boobaa ak noonu dafay daal di dugg ndax dañu daal di gis ne ñoom ñoom kat fukki junni lañ jaale waaye gis nga ñuy jaale ñu lu mat fukki junni kon kooku ak noonu dafay daal di dugg muy benn la ca toppaan muy bàkkaar ba mooy gis nga defu ñoon comme te yàlla tax dégg nga de defu ñoon te yàlla tax ne ne wa iza kaana ahlul mayiti fuqaraa waxtaada naasu itaahum fala basa li faqrihim ne ne daal li waral mooy bu fekkee ni foofu waa ji faatoo wala soxna si faatoo fi waa këram ñu dañoo nekkan ñu ñàkk te nit ñi tàmm nañu maanaam di leen dimbali di leen jàppale kon jàppale googu ñu leen doon jàppale su fa nit faatoo maanaam loola moom mën nañ koo yokk lu mën a nekk la mën nañ leen jàppale ci génn gépp fàmm te loolu maanaam dimbalante lay doon def te yàlla tax waaye doonul loo xam ne dañ leen ko defee sax maanaam ngir dëcc séentu leneen su ko defee bàkkaar bii mu ne moo cay nekk ak noonoo ga kon mooy bàkkaar bi mooy ñu ngay def loo xam ne lii amuñu fenn fu ñu ko mën a tegtaloo ci sharia mu doon bàkkaar kon waaye tamit noonoo ga mooy loolu ñuy bind su ëllëgee bu kee yàlla dogalee mënta joxe lu toll noona ak noonu daal di fay dugg fal aadatul mutabaatu lada al baadi fi l aza kal usbuiyaati wal arbainaati wassanawiyaati hadihi kulluha aadatun la asla laha wala asaasa laha nee na nag lii nga xam ne ni dañ koo aada woo topp ko rek nag ci ñenn ñi ñu di ko def te mooy di dig béséb sarax di fa dajo ñuy togg ñam du jeex muy di ca fere lu baree baree bari te fekk na dañuy leb dong nag di boole di togg waaw ñu koy def di ko dig bés bu dellu si wala ñu naan ñeen fukki guddi wala ñu koy def par ayat ne ne ne ne lii lépp ay aada yoo xam ne amul benn cosaan ci diine amul benn fondement ci diine bal hiya minal bidaa ne ne sax lii sax ay bidaa la yoo xam ne bidaa yoo xam ne sax dëppuwut ak charia la ñuy wax ndax loolu ñuy wax bidaa yoo xam ne dëppoo na charia ngir yokk charia dafa am waaye yi moom yu yu yu wuute ak charia la te yonente bi noonu man ahdata fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad képp koo xam ne kii boole nga ci suñu diine ji lu ci bokkut yow dañ la koy delloo yaay xam nooy def ak moom kon lu nu koy fu nu koy def ne ne wa haza min amril jahiliyati ne ne lii tam bu ñu koy xool di ko natt muy def ak dëcc ci nii ñu koy defee maanaam ci ceddo gala bokk maanaam jamono yi nga xam ne lislaam amut ak kéefar doo nga doon dox ñoo doon def doxalin yu mel nii kulluha mimma lam yashraahu llahu taala ne ne yii yépp nag dafa bokk ci li nga xam ne lii yàlla yoonalu ko yàlla santulu ko yàlla santulu ko kon mbokk yi ñoo ngi tuub bu baax tey jégalu te xam ne bu dee ci wàllu dëj la day taxawaay biñ ci taxaw nii niñ koy defee te jafee mucc lool nag lu jafee mucc la waaye day ah ku ko mën a moytu moo gën de ndaxte du dundab jullit de moom du dundab jullit ci foo mën a dem nag ci ñiy jàngale lislaam moom doo fa mën a am lenn cëslaay loo xam ne nii mën nga koo teg ne lii moom lu mën a nekk la kon yal na yàlla doole defal tawfiq di jaay sina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jéggal ñu doole ñu dimbali di jaay sina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullah